tey nag ñu ngi fii ci rëbës ñëw seet si ku ñuy wax Amadou Gaye ñu gën koo xam ci Django ñu nar a ak moom waxtaan mu nar ñoo faram ci séddalem ceeb bi nga xamante ni jur na polémique fii ci biir Dakar Plateau ak rëbës. Adja maa ngi lay ziar na ngeen def Euh, Papa Dieye dañoo seetlu que ni ceeb yàgg na dugg biir Rebeuss ay ati at chaque année day jur polémique ren nag kon euh, mu daal di doon beneen con ci mu ñëw ci beneen contexte boo xamante ne ci affaire coronavirus bi mais municipalité bi andi fi ceeb ñu séddale ko mais séddale boobu am na ñoo xamante ne gisuñu seen bopp. non bu ñu commencé wax ni que séddale bi gaa gisuñu seen bopp parce que séddale séddale mairie bi ceeb bi mairie bi mayee séddale bi ñu ngi ko door ñu ngi ko commencé. euh, dimanche te le mardi parce que man fekkee na depuis Abdoulaye Matar Fadel gay, ba tey si mais Ndoye sais mais c'est pas que li wax ni c'est politique mais nous tu sais de bi si Alioune Ndoye musul am musul am donc nekk opposant wala nga contre war war de mauvaise euh, foi parce que c'est Alioune Ndoye de liggéey fichier bi Alioune Ndoye ñëwee dañ def fichier donc cette Rebeuss curry, yi benn par benn kër benn créer benn fichier te fichier boobu Pape Diouf responsable section bi en son temps moom créé woon quoi dégg nga Pape moo créé woon donc fichier boobu on sait que il y a tant de famille y a tant de famille à chaque famille dañ fa dugal euh, ceeb wala dans le temps dañ dougal dugal ou wala sucre mais chaque famille mom wóor na moom daam ceeb Renji, ren jii léegi ren ji dafa am contexte bu particulier muy corona

mu jox ko responsable des jeunes responsable jigéen ñi quoi Ndeesu Diagne conseiller municipal pour mu gérer ko ak suñu dimbal quoi ñun Asu Diagne Asu Diagne bi ñu ko joxee ceeb bi dafa woo responsable yi mooy xam nga chaque ko quoi am nga responsable quoi mën naa tudd mën naa mën mën mën naa lim sax tur man mais bon c'est pas la peine du ko jar quoi mais na woo naa leen ba ñëwee am na fichier laa n'est-ce pas amna na fichier boo xam ne moom lay liggéeyee fichier boobu amul rëwës keur bo xamni ne fichier bi donc xam nga exemple soo bënd par exemple 1000 bon, 1000 bon, donc man bind ci ben jour donc boy kon day génn par euh, par lo, day génn par donc dimanche la commencé lundi dimanche lañ commencé joxé lundi jox joxe nañu tay mardi encore ba léegi ñu ngi joxe ni ñi ba légui ni té gisuguma en tout cas deug deug gisuguma ku ñaxtu ku ci fichier bi bo xamni que. nga euh, mais papa dit euh, le nu mu chef de quartier bi dans tout ça parce que bu faites ne dañoo jël ceeb boobu jox ko koo xamante responsable politique là, te peut-être rëbës yëpp du Ben parti est-ce que du affaire bi du andi polémique jox ko chef de quartier bi nous li war. dans le temps donc amoon na wax comité de qui, comité de comité de quartier la première année ñoom lañ jox nous bi ñoom ñu séddale ko d'accord Nous ñoom bi ñu ko séddalee au contre nous

fichier bi soo demee suñ la ko wane da nga koy lire benn tour par benn tour am na yoo xam ni APR lañu ñi PS lañu ñi non loolu bokk si parce que maire daf ni maire daf ni le plateau c'est lui le maire d'accord nañu ce sont ses administrés première ku moo ni amul politique dimmal la bu ma leen di apporter d'accord nañu c'est comme suy maye mandat suy maye mandat kenn du xool ndegam kii PS la ak no non non kenn xam nañu xool waa plateau lañu Alioune Ndoye mooy seen euh, maire donc dimbal bi daf leen ko war a defal saa mu xool fi nga bokk te fi may wax ak yow nii honnêtement loolu moo xew doo ma xew. Euh, d'accord mais tamit am na beneen question boo xamante ni mën nañ ko soulever muy est-ce que li mairie municipalité bi di joxe est-ce que doy na. parce que tamit euh, xam nañ rëbës du quartier boo xamante ne quartier bu ndaw la municipalité bi li mu joxe est doy na doomu rëbës yëpp famille yi nekk rëbës yëpp. léegi li ma remarqué daaw daaw laa wax daaw la même fille bi ko yor ren daaw moo ko moo ko yoroon daaw te dëgg-dëgg on a fait un excellent travail ren jii nii bi ma wax nii ren jii nii li mu joxoon daaw daf ko yokkaat encore daf dafa yokk encore waxuma la dafa yokk euh, kii bi dafa yokk euh, portion yi parce que dafa joxe xam nga avant dañu joxe ceeb ak ceeb ak suukar quoi ceeb ak suukar la woon ah ba dañ ci yokk dañ ci yokk ak saabu. dañ jox ko deux saabu ba pare mu yokk portion yi pour que ñu gën ko mën a ñu gën mën a ñu gën ko mën a yaatal ba la dame bi ko yor bi Assou Diagne dafa obligé xam nga dama la ni ko day liggéey xam nga elle a fait mun léegi nañ créé benn benn su quoi benn su parel bi nga xam ne que ñu xam ne nag nag nag ci fichier bi quoi ñu ngi si fichier bi ah su suñ bi ah suñ ma moo bi automatiquement mu mu beneen beneen kii mu mu enchaîné ak beneen liste bi et pour wax la ni amul segg ak seet. fichier bi ce matin ce matin biñu bi ñu vérifié deuxième non ki bi liste d'attente bi quoi biñu xol xool ce matin ñi ngi won ak 90 personnes yu bindu 90 personnes la ko yu yoo bindu ñu mais fichier bi fi nek ni Assou Diagne moom lay liggéeyee ce matin ce matin ñoo na joxe ñoo na joxe bon yi parce que dafa wo responsable du comité ak ruq yi joxe bon yi so demoon vérifier légui ci kër gi légui ni ci kër gi ci kër gi. da gis ben magasin bo xamni dafa dafa fesson à raa dëwlin ceeb saabu vide na ba ñu ubbi deuxième bañ bañ bañ bañ ba deuxième magasin bi ce matin ce matin lañ ko commencer ça veut dire que donc entre demba ak entre dimanche ak démb on a beaucoup donné parce que man man man tok ngi dara ma asu wala ben tourisme sama ko man asu diw.

mel transparence am na ci séddale bi. loolu man li ma fekkee parce que man mag la man fason Alioune Ndoye la fi nekkal man. wax a ah ceeb bi kat ni ni ni ñu ko joxee jaar yoon mais ba fi may wax ak yow honnêtement fi may wax ak yow nii dëggan dëgg la mi ngi tege si yoon fi ma nekk nii quoi loolu moom lu wóor laa wax moom te encore gëm naa ni daal xam daw daaw daaw amul problème daaw les gens étaient contents daaw te am naa yaakaar trop ni que lii am ren jii nii mooy gën a. moy gëna a baax li amoon daaw léeg li lii ñu nag léegi lii ñu nag léegi jaxasoo yu dafa tombé ci ceebu orka ñew ak euh, edu edu edu gouvernement bi les gens n'ont rien compris parce que edu orka dafa ben côté bu ko gérer. ok donc gars gis ñu joxé ceeb bu dégg ba jëkk xamuñu nu mu démé après ñu wax ni que edu gouvernement bi dé ñew nañ déposer ay 40 si chef de chef chef de quartier bi on a ils ont déposé presque deux mille

ñu ñun ñun ñun ñoo mais ceebu mairie bi li mu mën wax ak yow mu wóor laa wax ah ku nekk ku nekk de wax di nga nangu ni que daal en tout cas la femme la femme quoi ki ki nga ko jox ah, la ba fi mu nekk nii daal mu ngi koy mu ngi koy teg si yoon su ko tegul si yoon aw ah, su ko su ko defal aussi tamit wax man carrément ni que si yoon te dinaa wax patron bi maire waxoon ni que mais maire honnêtement daf ni amul c'est pas politique quoi aide bu mu quartier bi moy rebeus ak parce que nous, ñu beaucoup, ngi nous ñoo bokk ñoo bokk nous ñoo bokk mais dañ dañ quoi une partie pour la sax responsable ah, partager le ki moy partager boppam pas. Je partager euh, te sofi sofi fin de semaine dugg si keri la wax tu ah, da vérifier tu verras que franchement parler jaar na yoon ko ben beneen difficulté bi nak bi ma si yokk mooy da nga dug si ben keur ben keur famille ñom ñop ñu ñoo bokk bay ne ko ku ko ne am nga jëkër donc am nga fa cinq kaw diir et pourtant dang koy gérer pourtant dang koy gérer pourtant fexé ba ci bir keur gi daañu fexé lu mu bon au moins sax ñu ñu ñu ñu mën du ñu ñu mën dugal kat am na ñoo xamni comme dal ki nit wax daal comme daal fautaan yi quoi c'est c'est ñu xam fautaan la ñu quoi ñu quoi eh, fautaan la ñu xam nga ah. bon ne néew pas néew néew néew mais dañ dañ pas di sor ah, mais fichier bi dama man lire presque 800 personnes qui fichier dama dama la te man est-ce que vous wax or fichier normalement bon. Euh, ah, ku ne ci fichier bi rek am na bon dafa mel ni bu ñu déggee per mooy que ni transparence dëgg moo am fii nii ci Rebeuss ci wàllum séddale ceeb bi per Rebeuss TV. maa ngi remercier bu baax quoi man dama bëgg rek pour mu leer xam ni que xam nga yàqat moom ah yàqat moom da ngeen daan su bëggee yàq moom vraiment mais saa ngeen bëgg renseignement moom su ngeen ñëwee ah bal ngeen dugg si kër yi def genre xool di ngeen xam ni que li leen wax lu leer parce que man maa dul nangu maire joxe ceebam. ah ay nit du ay nit di ko détourné jamais loolu na na nangu daal man daal merci beaucoup ñoo ko bokk ah.